et télé en ak jàmm ci une chaîne YouTube Kenza 221 mais bien sûr Telmalolf, la chaîne des news la chaîne des plus belles chroniques mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game comme j'ai l'habitude de dire à chaque fois bu rek confirmez kon continuez à vous abonner et activez en même temps la cloche de notification pour ne plus rater aucune nommez aucune de nos prochaines vidéos parce que si vous len leen actualité hip hop galsen bo len bëgg xam hmm, ci man da ngeen ko votre grande chroniqueuse kon lan vous xaar pour abonner? j'insiste abonné len, ngeen activer cloche bi pour ne pas rater les vidéos qui suivent vous jouez à 1xbet n'oubliez pas d'utiliser mes codes promo Kenza 221 ou Kenza dina len permettre ngeen gagner bonus de 150 000 francs CFA oh my god gars yi ku ne xam ni 150 000 francs du ay fo te du ay tiaxan donc si vous voulez jouer vous pouvez utiliser mes codes promo Kenza 221 wala Kenza. Alors la MIFA, je suis tellement heureuse de vous parler encore une fois de Kicker, le jeune rappeur très talentueux. lan laay wax ci mom damay ñëw wax ci li nga freestyle Mos Dolly Diz 3 bi mu génné récemment. Et comme d'habitude dañ ciy wax expliquer et analyser Après, à la fin de la vidéo vous tamit ngeen mëna a joxe seen xalaat ci commentaire parce que nak sen avis da fay compter bu baax a baax a te man sen grande chroniqueuse dama ci jàngat lu bari sax. légui pour ne pas perdre beaucoup de time hein, ah nañ àndandoo xool un peu sur la vidéo freestyle mos doole gis 3 de kicker ñëwaat légui léegi let's go su baaxee ñu dem. wow am ngeen talent bu dee ci ay bla bla sim ngeen bu sel du rap may papa lu ma def mu naaj reggae jazz blues salsa man nag sama jiinoo def ñu risque man sama. alors gars on a vu ensemble la vidéo mos doole gis 3 et je pense que c'est plus la peine de me présenter le pourquoi parce que j'ai eu à parler sur ses freestyles précédents comme Mosto Dolly 1 Mosto Dolly 2 et tey ñu ngi wax ci li nga xamante 3 et à vrai dire ça me fait énormément plaisir de voir ci parce que Kicker dafa nekk koo xamante ni dafa gëm boppam am talent ba pare mën lu muy def trop sax et ça, produit damay gis évolution en lui lyrics flow technique et ne cesse de nous montrer sa polyvalence sur chaque freestyle Ça, sonne y a de l'évolution et de la maturité à vrai dire kicker ne cesse de nous impressionner Jambar la est bien sûr et lié la aussi parce que yombul chaque un mois nous gagne une belle freestyle bu nice une vidéo simple Et am qualité te di def li nga la promotion parce qu'à chaque fois que mu un freestyle mu ngi le tour pour ay produits wam percé genre il fait la promotion de ses produits et loolu dafa j'ai l'habitude de le dire à chaque fois et de m'y insister à occasion il faut toujours faire la communication de ses produits tout ce que je peux dire sur lui moi, il est très talentueux c'est un artiste très complet ci lancé bu mu nekk nii su ko continuer dinañ ko dégg fu sori am naa ci yaakaar déjà gars yi ñu ngi koy commencé ràññee ñu ngi koy commencé bàyyi xel ndax lan ndax liggéey bu nice liggéey bu extra ordinaire bu mu nekk di def non mais rien à dire ki Kicker en fait à part félicitations. yi dafa am loo xamante ne ni dama ko seetlu ci moom Kicker muy lan muy dafa nekk rappeur boo xamante ne ni day bàyyi xel dëkk muy tubaab jalaaw bon. jalaaw nag jot naa faa dem du benn du ñaar yàgg naa faa dem et ba ma fa demee gis naa ni y a beaucoup de rappeurs qui sont très non mais très talentueux comme par exemple ay Naymat Kriw ñoo ngi fa moom ki kër moo ngi fa ak ñeneen ak ñeneen par contre le problème en est que foofu hip hop bi demeewul noonu visibilité bi dafa des trop sax xëy na ñenn ci ñun animateurs yi bàyyiwuñ leen xel donc pour seen produit génn foog ñu boole ci liggéey donte am nañ talent bi ci liggéey boobu moom ki kër moo ngi ci parce que mu ngi def le tout pour ñu leen di dégg fu sori en plus bëgg na comme par exemple nu ñu waxee naan dakaar am na rab wala dakaar mooy capitalu rab bi wala naan Mbour am na rab ak yeneen saayit yi ñu koy waxee noonu tubaab jalaaw ne jalaaw city am na li nga xamante ni moo di rab et looloo tax à chaque fois ci ay saawunam da nga koy dégg mu leen di big naan jalaaw city wu bon mos doole 3 bi nak gis na ne bi tout indi et j'ai vu que daf ko maîtriser à 100 à vrai dire on dirait que Kicker ci lepp le mené. et lolu yep, c'est juste pour nous montrer de plus en plus sa polyvalence bien sûr mos Diaz 3 bi ego triple. et dedans il nous parle de son level de ses capacités de ñu xamal tamit moom liggéeykat la mais tamit di xamal gaay que képp kuy MC mën nga am talent d'accord tu peux avoir beaucoup de talent certes mais mom nga xamanteni ni moy ki kër moy sen papa manam mo len dàkk rak ñom dàkk rap ñom ñep égo trip la en fait en plus mu ngi ñuy xamal ni amna ay objectifs comme lan comme li nga xamanteni ne ni moo toucher ay disque d'or diamant ak li nga xamanteni modi platine et par la force objectif yooyu mu am ambition yooyu da koy atteindre dafa nek artiste rappeur bu gëm boppam en fait et noonu la comme ni ma koy faral di waxee à chaque fois nit ki yow yaay gëm sa bopp avant kenn di la gëm gëmal sa bopp ci li nga nekk nga gëm ko jox ko gëddam def ci fulla ak fayda comme ça ëllëg lépp loo ci am gars yi dinañ ne ah kii dafa liggéey pour yegg si fii tey te loolu gis naa ko ci moom. te à vrai ki kër daa nekk ci zone boo xamante ne ni da koo maîtriser muy lan muy style de musique bu mu nekk di def nii. bu ci day parce tellement que à il nous montre toujours ce qui est en lui et ne cesse de nous surprendre Moi, franchement parlé, je profite de cette occasion pour lui dire félicitations à toi bro vraiment content de ci et je l'apprécie bien mention spéciale à toi Kicker parce que job est mu euh, chaque un mois nga gennel ñu li nga freestyle mu nekk lu nice lu dope ce n'est c'est pas du tout facile nga koy jox gars chaque un mois donc félicitations lañ lay wax bonne continuation pour la reste donc gars s'il vous plaît daw leen abonné sur sa chaîne YouTube Kicker Partagez euh, partager liens likez et liker abonner pour plus de visibilité parce que mérité encore trop ça dans un mois ñu ngi ñëwaat wax ci li nga xamante ne ni moo di Mos 4 Kicker ak Kenza 221 ne vous inquiétez surtout pas à chaque fois bu génnee rek dama ci ñëw ma ngi ñëw far. donc mi ngi non wax leen seen xalaat ci commentaire yi no leen gisee Kicker no leen gisee le sound no leen gisee aussi son évolution de Mos 10 1 10 2 ak ci 3 bi à vos claviers bàyyi N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de partager mais aussi de liker Comment ça je suis sur Instagram sous le nom de Kenza l'officiel ma page Facebook bien sûr Kenza 221 sur TikTok Kenza national et sur Snapchat Kenza Diallo Vous ñi nga xamante ne euh, euh yéen a doon laajte ndax albumu début disponible na ou pas je vous passe l'information l'album est enfin disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal donc vous pouvez dem déglu ci ko man tamit ma déglu ko en attendant avant ñu ci ñew di ci wax yéen ma gëna xam donc mi ngi gros bisous à vous Love you all. À la prochaine.